sëriñ cheikh ahmadou mbàkke sëriñ cheikh ahmadou mbàkke ñu gën koo xam nag ci sëriñ cheikh daaru rahman mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1947 ci dëkk bii nag di Touba ci quartier bi nag di daarul xuddoosa di doomu soxna sooda Diop ak sëriñ abdoulahi mbàkke boroom dër bi moom sëriñ cheikh mbàkke daaru rahman bi mu feeñee jamono nag ci atum 1947 waajuram sëriñ abdoulahi mbàkke boroom dër bi mi ngi ko fayee nag waajuram sëriñ Touba xaadim rasuul ñu koy wooyee nag sëriñ ahmadou mbàkke ñu bare bare bare bari nag ci murid yi nag gën koo xam nag ci sëriñ cheikh daaru rahmaan bi ko waajuróom nag sëriñ abdoulahi mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasul nag di ko faye waajuróom nag sëriñ tubaa cheikhul xadim booba nag soxna sooda jóob mi ngi ci tuubaa nag daarul xuddoosa sëriñ amsatu jaxate la sëriñ abdoulahi mbàkke borom dër bi nag woolu moo tuddee nag sëriñ cheikh daaru rahmaan mii nag cheikhul xadima mu bokkit nag ci sëti cheikhul xadim yi ñu tudde nag seen maam am na mu bokkal nag soxna sooda jóob ak sëriñ abdoulahi mbàkke nag borom dër bi ñu mën cee ràññee nag sëriñ mbàkke ibnu soxna sooda Diop ibnu sëriñ Abdullahi Mbacke borom dër bi soxna muslimatu Mbacke bintu soxna Sooda Diop bintu sëriñ Abdullahi Mbacke borom dër bi ak moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ibnu soxna Sooda Diop ibnu sëriñ Abdullahi Mbacke borom dër bi ñaar nag la bokkal waajuru góor ak waajur wu jigéen ci mbooleem njabootuk sëriñ Abdullahi Mbacke borom dër bi waaye am na ñeneen nag ñu bokkal soxna Sooda Diop nag te bokkuñu nag sëriñ Abdullahi Mbacke borom dër bi ñu mën cee ràññee nag soxna Maymunatu Mbacke bintu soxna Sooda Diop bintu Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke soxna Khadija Mbacke bintu soxna Sooda Diop bintu cheikh Mamadul Moustapha Mbacke sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbacke ibnu soxna Sooda Diop ibnu cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ñett tim nag la bokkal waajur wu jigéen nag te bokkuñu waajur wu góor laataa ñuy xuus sax ci mbirum sëriñ cheikh Ahmadou Mbacke mi ñu wax leen nag waajur wii ko meññi nag moom mooy kan soxna Sooda Diop cheikh Mamadul Moustapha Mbacke nag mi nekkoon xalifa xaadim rasul nag lañ ko jébbaloon mook cheikh Mamadou Moustapha Mbacke itam nag am na ñetti bant ginnaaw bu mu jógee ci loxoy cheikh Mamadou Moustapha Mbacke tombeek Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag génn àdduna nag ci atum 1945 ca mois de juillet ba ginnaaw bu soxna Soodo Diop nag taxawoo ginnaaw Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag ba noppi lañ ko jébbal nag borom dër bi nag di rakku nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke mook borom dër bi nag di sëriñ Abdoulahi Mbacke nag am nañu tim nag ñetti bant muy soxna Muslimatu Mbacke sëriñ Mbacke Mbacke ak sëriñ Cheikh Daaru Rahman mii nag ñu fas yéene waxtaane tey jii moom sëriñ Cheikh Daaru Rahman nag bi mu matee daal alxuraanul karim waajuram sëriñ Abdoulahi Mbacke nag borom dër bi sëriñ Ousmane Gaye nag la ko joxoon sëriñ Ousmane Gaye nag doomu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye jëmooñ nag la bokkoon itam nag ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul tombeeg nag sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi nag sànc itam nag dëkk boobu itam nag di Daaru Raxmaan daaree alxuraan jafa amoon sëriñ Ousmane Gaye mii nag bokk na itam nag ci ña ko yoroon jëmm ji nag la joxoon nag doomam ji nag di sëriñ Ahmadou Mbàkke nag ngir mu jàngal ko mokk ñuy wax nag sëriñ Alla Ñang di doomu sëriñ Cheikh Ñang moom sëriñ Alamin Ñang ak sëriñ Jiili Mbàkke moom Soxna Maymunta Mbàkke nag moom Seexul xaddiim di xalifa sëriñ Moodu Maamun Mbàkke nag jamono ji ñett ñii nag la joxoon nag sëriñ Ousmane gay ak ñenn itim nag ci yi ya nekkoon nag ci dëkk boobu nag di Daaru Rahmaan ci loxo yi nag sëriñ Ousmane Gaye nag la jànge alxuraanul karim nag ba mokkal ko bi mu matee jàng xam-xam sëriñ Cheikh Faati Kandi Buso moom sëriñ Aafiya Buso nag lañ ko joxoon moo ko jàngal itam nag lii di xam-xam laataa muy jàng nag ba noppi la tombeek nag waajuróom nag sëriñ Abdullahi Mbàkke nag borom dër bi nag génn àdduna ci atum 1960 tombeek nag sëriñ abdourahman nag toll itim nag ci fukki at ak ñett mu wuutu nag waajuróom wa nag nekk itim nag xalifa waajuróom nag bu njëkk sàmm itim nag kër waajuróom taxawu itim nag kër waajuróom ba tax na itim nag amul lenn nag luñ mën a wax nag ci kër sëriñ abdoulahi mbàkke borom dër bi nda sëriñ cheikh daaru rahman nag def na ko fa bi muy toll nag ci fukki at ak juróom ñeent mu dëppoog nag 1966 la taxawal kër nag ñu boole koog nag soxna faati baawoo moo soxna faati baawoo nag am nañu ak njaboota muy sëriñ cheikh abdou mbàkke mi mu fayee nag waajuróom wa nag borom waaye nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Khader Mbacke muy sëriñ Jili Mbacke soxna Faati Baawoo mii nag mooy ñaareelu soxna nag bu sëriñ Cheikh Daar Rahman nag dëkkoo mu wéy nag toog toogaayu borom dër bi mu nekki nag ku bëgg maamam sëriñ Touba Xaadim Rasuul waaye itam nag ku fonk itam nag mbooleem njabootug Seexul Xaadim gi ba tax na itam nag daana wax ne du nangu itam nag ñu fab sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi di ko fénqaleeg kenn waaye du nangu itam nag ñu fab kenn itam nag di ko fénqaleeg sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi moo tax nag képp koo xam ne nii daa nga waxtaan nag ci borom dër bi suñ cheikh daaru rahmaan nag daana la bàyyi xel ndax bëgg itam nag lépp itam nag kenn ku ne nga jox ko cëram lépp loo xam ne nii itam waajuram bàyyi woon na ko fi itam nag mu sàmm ko lépp loo xam ne nii itam nag xamee woon nañ ko waajuram itam nag mu nekk ca moo xam mbayum noor mi ba ci sax usine ndox bi nga xam ne nii nag taxawal na ko sanc na itam nag ay daara wala sanc na itam nag ab daara di tarbiya di yar di jàng nag ak di jàngale daaru rahmaan itam nag mu yokk ko nag ci côté bu ne daaru rahmaan itam nag ci ak xilaafaam nag la amee Quran daaru ñaari forage Daaru Raxmaan itam nag ci xilaafaam itam nag la ameew yoon Daaru Raxmaan itam nag bokk itam nag ci ndonay Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim yi nga xam ne nii itam nag kenn itam nag ci ab sëtam itam nag ma nga fa mu nekkin nag ku waajuram bëgg nag moom Sëriñ Cheikh Daaru Raxmaan ba tax na nag bari na itam nag ci doom yi nag njabootu mag ñi Sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi fob na leen nag tudde leen nag doomam yi nag di Sëriñ Cheikh Daaru Raxmaan ñu mën cee ràññee nag ku ñuy wax Sëriñ Cheikh Mbàkke Taala di doomi nag Sëriñ Lay Taala ci nekkinu Sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi nag lañ ko tudde nag Sëriñ naan sëriñ cheikh loo di doomu sëriñ xamsatu loo bokkoon itam nag ci ñi nekkoon ci ron sëriñ touba cheikh abdoulahaat mbàkke nag ci daaray kaamil ji doomam ji nag di sëriñ cheikh loo itam nag sëriñ cheikh daaru nag lañ ko tudde ci nekkiinu nag borom dër bi sëriñ cheikh ñang doomu nag sëriñ cheikh ñang moom sëriñ àllamin ñan bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon nag ci ron ku baax ki sëriñ touba xaadim rasul sëriñ cheikh ñang mii itam nag sëriñ cheikh daaru rahmaan itam lañ ko tuddee kon ñett ñi ñëpp itam nag sëriñ abdoulahi mbàkke borom dër bi moo leen tuddee nag doomam ji mu wéy nag wuutu nag borom dër bi wutal ko gim nag bis nag bi muy fukki fan ak juróom nag ci weeru rajab di bis bi nga xam ne ni nag ci lañ mujjee gis nag sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi bi mu toogee nag toogaayu borom dër bi di daaru raxmaan ndax moo fi indi ndox nag muy forage bi ci ndimbalul nag xalifa général des mourides nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke lii di aw yoon itim nag ci ak xilaafaam nag la ko daaru raxmaan amee courant itim nag ci ak xilaafaam nag la ko daaru raxmaan amee poste de santé itim nag ci ak xilaafaam nag la ko daaru raxmaan amee ci ak xilaafaam itim nag lañ lotisi lycée Daaru Rahman soo delloo nag ci ñeenti way nag yi ko sëriñ Muudu Luum nag way mi ngi ñuy wax nag toog googu nga xam ne nii nag sëriñ Cheikh Daaru Rahman nag toog na ko ci dëkk boobu nag di dëkku waajuram doyloo gu mu doyloo suñu boroom ñàkk dem fenn nag gu mu ñàkk dem fenn nag ngir jëmmi Cheikhul Xadim gi loolu nag la sëriñ Muudu Luum nag def nag ay way di ñu wax nag melaw sëriñ Cheikh Daaru Rahman nag ñu teewlu ko rijaal ba raw na te jot ko faat na liggéey ba ñoŋ na seexa nga daaru aw tànki ba ba génnut fa daaru sëñ seex du sonle daa amuk jagle lu baax lay digle xoolal waa daaru ku ñëw mu yar la xamal la yilla waar la ci yàlla nga dollee waaru defar na ay góor defal na ay mbër te ngembe nay mbër foofee fa daaru mu taxawal nag ab usine nag buy defar ndox ci daara yi mu amoon nag ci ndokk amoon na daara itim nag ci dëkk bu ñuy wax nag njojik nekk itim nag ci suuf sii nag di xel koom daara ji nag dafa mujj nag taxaw waaye ña ko joxoon suuf sa nag la ko mujj bàyyee nag ñu koy taxawal nag ci dëkk boobu nag di njoññe sëriñ muudu luum nag def na ci nag ay way ginnaaw nag bu leen sëriñ bi santoon nag ñu dem nag ru tool ya ñu teewlu nag way yi ci sëriñ muudu luum nag def jagleel ko dëkk boobu nag di njoñjik nekkitim nag ci suuf si nag di xel koom te sëriñ cheikh daaru rahman moom sëriñ abdoulahi mbàkke borom dër bi nag yabaloon leen fa jóg leen ñu wuy ji borom njooñi ga woote ku munta dem na yéene ku man bu mbuute géej gaa duusooti jóg leen waaj ñu dem njooñik déglul ma déy la tuuti yow mi jëm njooñik yi ñuy woo moom doyewu wuñ ludut defal nu buur yàllaa ko teg fuñ jotut mu yootul nu sutnam xel romb nay xalaat bul ko àppal foo ko man di seen romb na foofa jàppal borom dër bi diiral jamal la sooyoo sëriñ seex mi ko am wallahi sooyoo waxi sëriñ seex ji mu doon wax ci njooñik na ma waar maag ñi teewe woon njooñik fukk ak juróom la woon ci weeru me at ma bul ko fàtte 2010 la ame jël yaa tax mu gàttal waxam juréy ja pas-pas yépp a yokkoo ca waxam juréy ja lii ma bëggoon a def ci yéen la wax leer na lim def ci nun noonu nañ leen ko sàmm war ci teewaayu rakkam yi ak njabootuk boppam ba ca sëriñ Abdu Mbay ma joxe boppam tofal ca léppam di dox doxinu baayam daa dox ak Seex Abdulaahi baayam seen ànd bi bégal na Seex Abdulaahi yal nañ ko ànd ba ca kanamu laahi ginnaaw daara jooju nag di ñoo njëg na nag di taxawal nag ay daara taxawal na nag daara nag ci dëkk bu ñuy wax condax nekkitim nag su suuf si nag di Saalum dem na màkkatal mu karama ci atum 1976 ci ndigalul sëriñ Tuubaa Seex Abdul Ahad Mbàkke delluwaatoon sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yónni mas na tukki itam nag Allemagne daana dem itam nag Gambie ak yeneen ak yeneen réew nag daa dem ku bëggoon itam nag Mbacke bawal la ndax saa su ne nag daana fi ñëw nag lu baree bari mu nekkin nag koo xam ne nii nag soxlaalul kenn dara ndax ndonal maamam nag doy na ko loolu itam nag bokk itam nag ci ay seede nag yuñ ko seedeel ci ginnaaw nag bu mu fi bàyyi ko ndax ki yor kàddu mboolem murid yi di sëriñ Basiiru Mbacke nag Abdou Khadre wax ne ne nag sëriñ Cheikh Daaru Rahman sëriñ Muntaqa Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Basir nag mi xalifa général des murit wax na ne nag benn murit nag bu mas a dégg nag njàmbatum sëriñ Cheikh Daar Rahman amul lu dul nag keroog nag bi mu yëgee ne nag dafa feebar nag te dafa war a dem bitim réew te loolu itam nag ndonal maamam dong nag moo ko doyoon ci la nekkoon loolu itam nag nekk itam nag seede boo xam ne nii itam nag képp kuy murit itam nag mën nga koo seede nag ci doomu sëriñ Abdoulahi Mbàkke bi mu nekk nag ku bëgg nag njabootug maamam gi ba tax na nag képp koo xam ne nii nag maamam xaadim rasool nag tudde na ko doom moom sëriñ Cheikh Daar Rahman itam nag barkeelu nag ci tur woowu tudde ko itam nag kenn tim nag ci njabootam mu nekk nag ku jaxasoog doomam sëriñ mbàkke soxna loobu tudde na ko doom magam sëriñ mbàkke madina itim nag tudde na ko doom magam cheikh mamadul lamin baara mbàkke ibnu cheikh mamadul faadal mbàkke tudde na ko doom magam sëriñ moodu moustapha mbàkke falilu sëriñ moodu bu sa jang nag tudde na ko doom ñooñu nag ñenn lañ nag ci ñim tudde doom ci njabootuk sëriñ tuuba seexul xadim gi mu wuutu waajuram nag ci lu toll juróom benn fukki at yàlla toog itim nag toogaayu waajuram nag ci fukki atam ak ñett génn àdduna itim nag ci juróom ñaar fukki atam ak ñett laataa muy génn àdduna àdduna nag la ko ab feebar nag tëral ñu yóbbu ko nag ci réew mii nag di France keroog nag bi muy dem France mi ngi ànd ak nag doomam nag soxna maam Faati Mbàkke ànd ak rakkam nag sëriñ Mbàkke Mbàkke ànd nag taalibeem nag bu ñuy wax nag murita ci hôpital France yooyu nag la génnee àdduna ci fajaruk àllarba ñaar fukki fan nag ci weeru rajab ci atum nag 1440 nag ci gàddaay gi àllarba ñaar fukki fani rajab ci atum 1440 nag ci gàddaay gi dëppoo gitim nag muy mercredi 27 mars nag ci atum 2019 2019 yoonu murit nag yëg na nag kenn tim nag ci sëti sëriñ Touba Seexul Xadim yi nag génn na àdduna ñu jëlee ko France nag ci ndigalul nag xalifa général des mourides di sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke ci kilifteefu jëwriñam sëriñ Basiiru Mbàkke nag Abdu Xaadar mu wàcc Sénégal nag ci guddik ajuma gi ñu indi ko nag Daaru Raxmaan nag ci yoor yooruk samedi gi otop sëriñ Amsatu Mbàkke nag jaalibatu maraaxib nag moo ko dugal Daaru Raxmaan ñu jiital nag karbiyaa boppam jébbal ko boroomam nag ci pénc moo xam ne nii nag moom moo ko sos nag ci daaru raxmaan sëriñ muntaxa mbàkke ibnu cheikh mamadul basir mbàkke nag moo ko jullee ci teewaayu nag mbooleem nag ñi mu bokkal sëriñ abdoulahi mbàkke boroom dër bi ci teewaayu nag mbooleem kilifa yoonu murit wi ak itam nag ci teewaayu nag taalibe yu takkoo takkoo takkoo takku nag yu yaakaar daaru raxmaan ak faneen benn seede bi nag moom la ñépp nag maase nag wax ku dëggoo ngi nii ku ragal suñu boroom a ngi nii ku doyloo ndonal maamam nag mi nag mi ngi nii mii ku maandu nag mi ngi nii ci kàddu yooyu nag la ñëpp maase nag seedeel ko ko ñu jébbal ko boroomam nag ci dëkk boobu nga xam ne nii nag fa la waajuram génne àdduna di daaru raxmaan ay xalifaam nag nii la tëddee kam fayee nag waajuram nag di sëriñ abdourahmaan mbàkke boroom dër bi ñu gën koo xam nag ci sëriñ cheikh abdou mbàkke moo toog nag ab toogaayam ca xalifak waajuram nag ka ko fa wuutu nag mooy sëriñ muudu abib mbàkke nag di rakkam ñuy ñaan nag suñ boroom nag sàmm ko nag te aar ko sàmmitim nag mbooleem nag ay moom moomu nag di sëriñ cheikh daaru rahmaan itam nag fa tëdd yàlla na ko suñ boroom nag wanaleeg maamam te fay ko nag jëfam te àtte ko itam nag ci yërmandey boppam lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajey kañ ko tudde nag di xaadim rasul amin xaadim rasul amin xaadim